alors article 87 boobu est-ce que c'est pas un précédent dangereux est-ce que c'est pas une autre réforme déconsolidante boo xam ne euh, mën na gën a ñàkkal doole assemblée. waaw feebar bi gën a rëy bi daal suñu démocratie mooy présidentialisme bi nga xamante ni moom lañ am ñenn ñu tuddee ko présidentialisme néocolonial muy système politique boo xamante ni doole ji yépp benn nit moo koy yor. système politique boo xamante ni lépp may mun a mu ngi dépendre ci président Macky Sall xam nga da ngay wax pouvoir judiciaire xam nga dañuy wax pouvoir législatif mais en vérité soo xoolee assemblée nationale bu Sénégal li muy dox mënoo wax ni assemblée boobu am na pouvoir soo waxee justice boo si ni muy doxee mënoo wax ni justice boobu am na benn pouvoir ñu yokk ci ni président de la république may mun a à tout moment mën na dissoudre assemblée nationale ça veut dire demain dañuy dem élection am une nouvelle majorité bu am trois mois la République dissoudre non c'est pas quatre mois cinq mois après euh, l'idée c'est de coupler l'élection présidentielle et les élections législatives alors que bu xaaree deux ans au mois de septembre il a la possibilité constitutionnellement et légitimement de dissoudre cette assemblée alors euh, la question que les gens se posent c'est pourquoi à part l'argument financier bi ñuy euh, bi ñuy invoqué euh, c'est quoi l'argument politique qui peut sous-tendre cette euh, cette réforme ñoom boo leen waxee dañ ni c'est pour mettre à l'aise le nouveau président qui sera élu am na ñenn wax nañ ci loolu mais loolu mënut a am benn problème parce que président de la république bu bees bi ñuy élire mois d'avril lañ koy fal soo ko faree mois d'avril war a mën a xaar 4 5 mois 6 mois au mois de septembre nga mën a organiser de nouvelles élections pour je pense que ni Macky Sall néew na mu poser en tout cas ci réforme yi mu indi ci réforme constitutionnelle wala loi bu mu dugal pour mu gën a dëgëral démocratie su Senghor sax il fallait nga di nga daa xaar ñetti at pour président de la république mën a tas assemblée nationale assemblée nationale bi ni mu néewee doole niñ koy suufeele may mun a ni ñu ko ñàkkale fayda buñ ci dollee indi article 87 bi nga xam moom lañ bëgg a réformer encore je pense que nekku lu dul nërmeelal institution yi nekk lu dul nërmeel suñu démocratie nekk lu dul gën a nërmeel euh, suñu si pouvoir système ju euh, li ci garaaw mooy euh, c'est pas tout le bloc de l'opposition moom moo moom moo wu ci ci ci mbir bi y a des rejets timides am na y a des rejets Euh, catégorique mu mel ni euh, en associant en euh, associant la modification des articles sur relatif relatifs à l'éligibilité ak cet article 87 am na épée de Damoclès qui plane sur la tête de deux candidats Khalifa Sall ak ki nga xam ne moom mooy Karim Wade. mais mu ne loo ci mënti dégg am na ñoo xam ne libre ñu liberté bi nga mën a am. pour wax suma xalaat ci yu bëree bëri euh, da ngay xam ni peut-être am na ñoo xam liberté boobu amaguñ ko. c'est-à-dire libre ñu à dire c'est quel genre liberté. soo xoolee dialogue politique bi ni ko Macky Sall doxale am na loo xam bu ngeen ko bëggee sax da ngeen ma koy ñaan ña dem ci dialogue bi conditions yi leen Macky Sall imposé ci dialogue bi contexte bi Macky Sall defee jaloog boobu xam nga ni ñooñu seen liberté amuñu ko bu fekkoon am nañu liberté ñoom ñooy jëkk a ŋàññi nii Macky Sall di doxale loi yi ak ni mu ko dugalee ak procédure d'urgence ak bëgg néewal assemblée nationale néewal doole boobu mais euh, ci aux dernières nouvelles am na ñu ni président retiré na ko parce que am na ay députés yi nekk ci majorité bi si wax yoo xam parce que nag yaakaar naa ne kenn du dagg branche bi nga xamante ni. ci nga mais même dans la dans dans la majorité présidentielle euh, député députés ñu ci. waaw moo tax ma ne branche bi nga toog kenn du ko nangoo dagg ñoom wax nañ dëgg <laughs> député yi am na ñoo xam ne ne dañoo jël ay bor seen salaire assemblée nationale lañ yaakaar dem nañ ca banque ba ñu leb tey jii su président de la république dissoudre assemblée nationale ñu nekk député est-ce que yeneen élection yi di ñëw moom wóor na leen ni ñoom dinañ ci bokk. mais calcul yooyu sax baaxul ay calcul politicien la li am solo mooy aujourd'hui may mun a yan réforme la ñu war a mën a dugal yoo xamante ni day encadrer les pouvoirs du président. mais d'accord nga ne assemblée bi aussi niveau bi c'est pas ça. ah oui ah euh, conditions yu ñu ko mm-hmm. yu ñu ko yu ñu ko tabbee euh, tax na tey on na une une une assemblée de très piètre qualité. Maïmouna soo waxee dëgg assemblée nationale gëj na am niveau. ah bii moom <laughs> dafa bokk ci yi nga xamante ni aussi niveau bi. moo gën a yées. Eh, niveau bi yées na yées na mais euh, gëj nañ am assemblée nationale buy dox dëgg comme assemblée nationale gëj na am mais loolu lépp Macky Sall la moo tas institution yi muy justice muy législatif pour moom rek mu exister pouvoir yëpp yëpp yëpp mu jël instrumentaliser justice saa su ko neexee. justice nekk benn bras armé bu Macky Sall yor boo xamante ni bu bëggee dal ci adversaire politique mu dal ci adversaire politique xoolal Maymuna ni Macky Sall instrumentaliser la justice dal ci Khalifa Ababacar Sall tëj ko kaso bëgg ko génne génne ko bëgg mu bokkaat ci jeu politique bi mu tegaat mécanisme loi buy dem assemblée nationale boo xamante ni c'est pour régler ay problèmes particuliers au lieu mu régler ñun suñu problème mu démocratie la loi doit être impersonnelle générale mais loi boo xamante ni ñëpp xam nañ ay problèmes particuliers lay régler et foofu laa ne effort yi Macky Sall